abdan xadiman faaza bil ayaati askuruhu zukra allazina sharibu min azbi wa lil jinaani xurribu xustu xayaatan laa turaa li xayri mucjizatan baanat li husni xayri yajuudu lil jawaadu bil jiyaadi وسول لي يكون ذا انقيادي أحياني الباخي بلا يماتا ولا تنازع ولا شماتا أعطاني الباخي الكتاب الأعظم ولا ألاخي كل من تعزما عني جزا والدتي والوالدة خيرا كثيرا لا يسأل خالدا نفعني بالمصطفى المصفع عليه ما نفعا الأنفع دعا خلامي إلى سكور من سقر للخلق بقاء إذا من ربي مالكي خليلي والحبيب وقد ما عني داعي الطبيب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 muhammadul wasilati wa junnati auzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim alhamdulillahi rabbil aalamiin wa salaatu wa salaamu ala asrafil mursaliin sayyidina wa mawlaana muhammadin wa ala aalihi wa sahbihi wa sallama tasliima asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu yéen mbokk yi ñuy seetaan fii ci Touba Ndiakhaye pencum Cheikh Mouhamadoul Moustapha ibnu Cheikh Massamba Mbacke mi nga xam ne ñu ngi koy ñaanal suñu borom dolli ay yërmandeem dolli ak njëggalam dolli ay leeram te tax na ci barkeem. tey jii nag li waral bis bi bis la boo xam ne bu am cosaan la euh, gannaaw bi ñu siyaaree nuyu saahibul fadila Cheikh Mouhamadoul Mountakha xalifa général di murit du ko ñaanal suñu borom yàggal ko te wéral ko. waaye di jaar ci buntu kër Serigne Massamba muy Serigne Maam Mor Anta Sali Mbàkke mi nga xam ne mooy toog jataayu ma sàmba ñu koy ñaanal suñu boroom dolli ko kàttan te wéral ko ba mu àggale ay naal yi nga xam ne naanal na ko waajuram Cheikh Massamba te ñu ànd koog moom. waaye ak mboolem njabootuk sëñ sàmba gi buñ ci tuddee sëñ Abdul Xabir moom Serigne Massamba ak Soxna Daba moom Serigne Massamba ak Serigne Cheikh mi nga xam ne mooy seen jëwrin muy Serigne moom Serigne Mahmoudan mi nga xam ne mooy seen kàddu di seen ndaw waaye nag dugg ci buntu kër Serigne Moustapha Serigne Ahmadou Mbacke mi nga xam ne moo toogee jataayam te mate ko sëkk ñuy ñaan suñ boroom euh, gën ko dëgëral gën ko kàttanal ba yéene ji nga xam ne Cheikh Mahamadou Moustapha amoon na ko ci yoon wi am ko ci kër waajuram mu àggale ko tañ ànd koog moom waaye it di wax ci kàddu jëriñam sëriñ naa moom sëriñ ma sàmba ak njaboot gi ñu fay gool ñëpp ngeen leen di gis muy njabootuk sëriñ Massamba gépp muy góor ñi ak jigéen mag ak ndaw ak mbokki ak taalibe yëpp cosaanul bis bi nag lu yàgg loo xam ne mënees naa wax ne man mii di wax ak yéen dama fekk sëriñ bi di ko def ndax biñ ci mujjee waxtaan xam naa ne ba mu koy def ba baag léegi juróom fukki at yi moom bu tegut it manqué wut kon lu yàgg la loo xam ne moom ci boppam nee na sax moom ci boppam moom waxal ci boppam ne ma bis bi bi ma koy def sax sama man aggu ci waaye sama pësseef ak sama yéene ci ñaanal sama waajur Seex Masamba ci laa ko doon defee. muy loo xam ne ci njëlbeen ni ngeen xamee ak njëlbeen waaye macha allah mu di ko def di ko def ba yàlla dogal mu toogee jataayu sëñ ma Samba euh, mu xam ne kon bis bi mu daa defal sëñ ma Samba màggalu sëñ ma Samba sos nañ ko waaye téewul nag mu dàkk ko nag ci bis bi nga xam ne xam ne xam ngeen ne sëñ ma Samba lépp luñ koy defal euh, buñ ca laa buñ ci tuddee sëriñ Touba rek loolu day da koy gënal sëriñ bi nag xamoon loolu dàkkoon bis bii nga xam ne nag xam na ne bis la boo xam ne bisum ñaan la. ndax sëñ Massamba ak sëriñ Touba benn lañ te bis bi kenn ku ne xam na ne yi ci daje kon buñ ci dàkkee ñaanal ci sëriñ Touba ñaanal ci sëriñ Massamba ak mboolem may dawlu ya waaye fa tabaarakallahu taala taawoom bii ji sëriñ Ahmadou Mbacke ànd ak njaboot gi bi ñu waxtaanee ñoom ñu gis ne loolu yi nga xam ne moom la seen waajur doon def di ko def ay ati at ba mu ci ñoom kon bis boobu dañ cey boole ñaanal sëriñ Touba ñaanal ma Massamba waaye ñaanal sëriñ ma Massamba ak mboolem njabootug sëñ Massamba gépp ak mboolem way dawlu yëpp muy bis boo xam ne sëñ bi ci boppam moo ko daa taxawal la ko ca gënoon a ñor nag gën ko cee yitteel mooy njàngum alxuraan mi gis ngeen léegi ci jumaa ji macha allah mbooloo mu takku ay daara yu takku ak euh, sëñ Moustapha Lo mi nga xam ne kenn la ci sëriñ bi te xaritam di taalibeem di mbokkam di léppam moom mu daa taxawu mboolem fidaaw yi moom gis ngeen ko. ñu jàng fa limu kaamil ndax juróom-ñaar fukki kaamil ak juróom-ñaar la ci sëñ bi daa jàngulu ñu ngi ci toll ci cat li war a xatmu kaamil yi incha allahu taala daa ci def it ay fiddaaw lu mel ne bisimilahi rahmaani rahim ay laa hawla wala quwwata hasbuna allah wa ni'mal wakiilu laa ilaaha illallah muhammadu rasulullahi listighfaar salaatu ala nabi ak ñaan googu nga xam ne sëñ Massamba waxoon na xam ne moo ko bindoon ci loxol boppam muy allahumma inni ko googu nga xam ne mbokk yaakaar naa ñi faral di topp ñaan gi ñu bari xam nañ ko googu ñu jàng ci ab lim jàng lixlaas ci ab lim ah, loolu def ko ay fidaawu sëriñ bi ci boppam bu ko masaane def day wax ne maa ngi ciy ñaanal sëriñ Massamba ñaanal ci sëriñ Touba ak mboolem way dawlu yëpp kon ren nag ñi ngi ko ciy ñaanal moom suñ borom gën a dolli ay leeram gën a dolli ak njéggalam gën a dolli ak yërmandeem waaye it ci barkeem ñaan googu it sëñ Ahmadou ak njaboot gi ñu suñ borom yàggal leen fi bay ñaar yi nga xam ne naal na ko ñu àggale yëpp te loolu naal yooyu yaakaar naa ku fi ñëw wala ngay seetaan danga gis jumaa ju mag ju rëy ji nga xam ne macha allah fa tabarakallahu taala ci taar ak ci yaatuwaay da nga xam ne kon naal yi nga xam ne moom la fi bàyyi woon njaboot gi mu fi bàyyi sof nañ ca euh, te incha allahu taala su tey la alxamis ji bisum ñaan gi waaye suba ci juma ji incha allahu taala ci la njaboot gi daje gannaaw bi ñu amee ndigalul sëriñ bi jaar ci ki nga xam ne mooy seen jëwrin di ci njabootuk sëñ Masamba muy sëriñ Mamoor sëriñ bi dana yebal sëriñ Fallou Mbacke mi nga bi tànn mu war a taxawu jumaa yi dana ñëw incha allah taala ànd ak njaboot gépp ak mbokki yëpp ci buntu kër yëpp ci kër sëñ Touba yëpp ak julli yëpp ñu ñëw incha allah taala ngir motti li yéene sëñ Moustapha jooju te loolu lu am solo la loo xam ne li yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxoon ne képp koo xam ne tabaxal nga sa am néeg lu toll ne sax maanaam ni mu ko mën a waxee rek li gën a néew loo xam ne lu mu ngunu lu toll ne ngunu rek mën na sa koo waxee noonu wala lu ko gën a néew rawatee na nag jumaa ji ngeen gis ko nee na suñ borom bu ëllëgee dana tabaxal ca njënni àjjana ay kër yu mag a mag mag kon loolu yàlla na ko ko suñ borom defal muy ay njënd ndax xam ngeen ne jumaa dafa am wàccuwaay lool ci lislaam ndax jël la naa julli juróom yañ fay def jël la naa mbooloo ya fay teew di bennoo ga ak euh, jubóole ga ak dimbalante ga fay nekk waaye jumaa képp koo xam ne ñëw nga julli fi benn rakka wala nga jàng fi benn faatiha wala nga def fi lum néew néew lum tuuti tuuti suñ boroom dana nangu sa yiw Ah, dana nangu dana nangu sa yiiw nangu nangu waa àggale yiiwu ka def jumaa kon loolu lu am solo loo xam ne kon bu njaboot gi maasee ñaanal Serigne Moustapha ci bis bi tey ñu ne incha allah ëllëg dañuy ubbi jumaa ji incha allahu taala ah, loolu kon lu am solo la. kon ñi ngi sant it ci bis bi kenn koo xam ne it de su ko bu ñu defee bis bi rek ku tudd Serigne Moustapha rek sa xel dana dem ci moom muy bokk ci ay jiwinam di ab seexam Serigne Madické Niang moom it ab taxawaayam rafet lool ci lépp lu ñuy defal Serigne Moustapha waaye lépp lu ñuy defal sëñ Massamba waaye lépp lu ñuy def ci yoon wi moo cay jiitu man ca doon jëwrinam ku xamoon sëñ Moustapha rek xam ne ma yóbbaale na ngërëmul sëriñ ma dikk moom kon ñu ngi koy ñaanal sëñ Ahmadou nee na moo gi ñu koy sant bu baax a baax ndax xam nañ ne la ko sëñ Moustapha defoon muy taawu kër gi di jëwriñu kër gi loolu bi fi sëñ bi jógee it dafa matale loola ñëw sofaat lu mu daa def rek ci kër gi rek da ko fulaat waaye wàññiwu ci dara kon ñu ngi koy ñaanal suñ borom kattanam ak manam ak wéram lépp yokk waaye sëñ Maamoor mi nga xam ne it manes naa wax ne mooy seen sëriñ di seen waajur ñoom it nee nañ wax waxtu wu nekk fa seen waajur wa taxawoon moom it fa la taxaw ci ñoom yónnee na fi ay ndaw yëkkati waa téléphone am wax wax ju rafet soññee bu baax a baax kum gis ci njaboot gi di la digal wax na ne nañ bennoo nañ gën a jàppoo kon day mel na moom moo ñàkk waaye njaboot gi nee nañ sëñ Maamoor ñi ngi koy dalale seen xel xam ne mooy seen waajur di seen sëriñ incha allahu taala dañoo fas yéene wa ànd doon benn topp ci gannaaw sëñ Ahmadou topp ci gannaawam lépp lu muy digle kenn du leen ca man lu mu tere it kenn du leen duñ leen ca gis kon loolu njaboot gi ci lool lañ nekk ndax sëñ Moussa Massamba ku ko xam xam ne loolu ab yarekat la woon ab jàngalekat la woon koo xam ne waxtu kilifaam li Seex Muntaxa daa wax lu bari bayit woo loolu mu daa wax ci sëñ Moustapha laa ko firee te mooy nee na sama kilifa dama koy jiital te bàyyi ko saa bopp sëñ Moustapha Massamba noonu la daa doxe moom day jiital kilifaam ba pare bàyyi koog boppam nag du ko tànnal du ko wax ne ko fii laa waaye nag lépp lu sëñ bi digle wala lu bëgg da koy def waaye lu muy tere kenn du ko ca gis sëñ Moussa ci loolu la nekkoon sa manees naa wax ne tàmbale ko ci sëñ Modou May ba ci sëñ baax Baaxe mi nga xam ne moo fi mu jóge mboolem njabootu sëñ Massamba gépp kenn ku ci nekk lim la jàppe woon da laa woon waajur jàppale sëriñ daala liggéeyal ba làq ñëpp seen ngërëm di ko yàlla dogalee it mu nekk fi sëriñ Massamba gis ngeen ne sémbu yu rëy yi macha allah boo demee Daaru Karim da nga gis ne liggéey bu am solo boo xam ne taxawal na ko fa jëmmal ko fa muy jumaa jooju nga xam ne sëriñ Maamoor ñu ngi koy ñaanal suñ borom yàlla def ko mu àggale ko te ñu ànd moom ba ni ñuy ubbee jumaay Njaxaay ji incha allahu taala ñu ànd ak njaboot gi nekk ci gannaaw ko sëñ sëñ Maamoor àggale ko boo demee it gis nga barab ba macha allah loolu lépp day wane ne yéen a ju rafet ñi mu amoon ci liggéeyal waajuram liggéeyal sëñ Tuubaa liggéeyal lislaam loola day mel ne ak mujjam Ah, loolu uh, da koy firndeel damay wax lu bëri ne sëñ Moussa Massamba day daa jàngale def lu baax def lu baax résultat bi boo xoolee ni mu dundee macha allah ba ak mujjëm ba ja ak gannaawam ni mu mel loolu day wane ne kon naka kon lim doon soññee ci lu baax nekkoon ca résultat bi mooy kon ndeke nit ki bu fi nekkee di def lu baax ak mujjëm mujj gu rafet lay doon macha allah waaye gannaawam it du sooy ndax dana fi bàyyi ak njaboot goo xam ne danañ taxaw gannaawam ba naal yi nga xam ne naaloon na ko ak kóllëre yi mu fi bàyyi woon ñu jog ko kon sëñ Ahmadou moom la def ànd ak njaboot gi takk képp koo xam ne kóllëre la woon ak sëñ Moustapha muy moo xam waajur la wala mbokk la loolu incha allah ña cay jokk luñ man naal yi nga xam ne moom la fi bàyyi woon it muy jumaa yi ak jàkke yi ak kër yi ak daara yi lu nekk yokk nañ ko kon ñi ngi ñaan suñ borom defal ñu tawfeex moom it suñ borom gën a dolli yërmandeem dolli njëggalam njaboot gi mu fi bàyyi it yàlla yàggal leen fi yokk seen man yokk seen kàttan ba nga xam ne lépp loo xam ne sëriñ Moustapha naaloon na ko ko bëggoon koo def te euh, ay atam matul mu matewu ko aw fanam matewu ko ñoom ñu àggale ko ko te incha allahu taala loolu rek kay am ndax njaboot gi ci loolu la leen jar mooy liggéey ak jaamu yàlla ndax ko ko xamoon rek ñaari baat yooyu rek ku ko xam ku ne ci ñaar yooyu la nekkoon te moom la moom la daa digle ndax daa wax ne xawma fi xawma soxla soo xam ne Euh, xawma ajjana joo xam ne bëgg dàbbi ajjana joo xam ne jaamu yàlla mayiwu ko xawma ko waaye soxla soo xam ne liggéey mënu koo fajul xawma ko kon ñaare fi nekk mooy tey ak ëllëg kon tey ak ëllëg ku ko bëgg a boole bëgg tey sa tey sa tey jag sa ëllëg rafet da ngay boole ñaari yooyu muy jaamu yàlla ak liggéey kon loolu ci la ñu yar moom la ñu daa jàngal di ñu ko joxoñ kon bu fi bàyyeeg njaboot incha allahu taala ñoom it ñu am mébét sëñ Ahmadou ànd ak njaboot gépp ñu fas yéene jumaa ji ñu ne ni ko seen waajur defoon dañ koy gën a taaralaat gën koo yeesalaat ba mu gën a rafet ba a baax ba gën a mucc woo njabootu sëñ Tuubaa gépp ak julli yëpp ñu ñëw ñu ànd ñu ci sëñ Modou Mbacke moom sëñ Abdou Salaam mu war koo taxaw moom kenn ku na xam ne di borom xam-xam di koo xam ne macha allahu taala ci njaboot gi la bokk. kon loolu euh, lu am solo loo xam ne kon ñu ngi ñaan suñ borom ñu àgg ci bis baak jàmm mboolem luñ fi jàng ci alxuraan luñ fi def ci ay fiddaaw suñ borom gën a dolli yërmandeem dana gën a dolli kàttanam ak sëñ Massamba ak sëñ Touba ak mboolem ñu fi fekk ñi lañ fi fekk njaboot gi it suñ borom gën a dolli seen kàttan gën a dolli man xam naa lool daal ci tënk bu fekkee ne sëñ Abdou Xabir a ngi ni moom sëñ Moustapha moom sëñ Massamba ak sëñ Mouhamadou Basir ñi nga xam ne ñoom ci jëwriñu kër gi lañ lépp luy loo xam ne daa aju ci xam-xam ak ci yëngatu ñoom ñoo koy taxaw sëñ Xalil la nga ne ak sëñ Fallu ak njaboot ñëpp ak euh, sëñ Abdou Salaam ñoom ñëpp a fi teew fi teewal fi geneen njaboot gépp ñi nga xam ne ndax dañoo tasaaroo ci kër yi waaye njaboot gépp a ngi fi muy góor ñi ak jigéen ànd ci gannaaw sëñ Ahmadou Mbàkke ndax loolu la leen seen waajur digaloon mooy lu man a xew nañ doon benn nañ nañ takkatoo ndax suñ ko defee doon doon wenn say rek di yëkkateendoo di tegandoo incha allahu taala kenn du leen mënal dara lool nag ci njaboot gi ci loolu lañ nekk kon ñi ngi doon wax ci turu sëriñ naa mi nga xam ne mooy jëwriñam di ko ñaanal moom it jëwriñ ji nga xam ne sëñ Ahmadou teg na ko ko mu yàgg koo jiite le yàgg am ay ndam moo ànd ko kër akam ak taalibe yi ak njaboot gi ñëpp yan xaadu min ya salaamu an sala loxo bi alihi wa abdalil mala rasuluna ahmadu kulli ala alayhi xayru salawatil ala suntu loxo abkaar am daaxil la daa من جهل سأني وسف الخلدا قلبي سفى بكون ربي خلي حبي ولي جعل كسرا خلي وجه لي حلاوة الدارين وفيما جعلني جارين نفعني فيما مدى وما اختفى wa kawnu li bi munaaya maxtafa nafaani bi ma bada wa maxtafa wa kawnu li bi munaaya maxtafa faritu billahi alkarimi wa rasul wa xisbi wa xustu minhu xay rasul ribi imtidaahu man bi baaxi dafa أسن توجه إلي فاندفع حكمني الحكيم وهو الحكم ومنه تأتين المنى والحكم يقود للخبير والعليم ما دونه العلوم والتعليم نفى الخبير عن فؤادي جهلا asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu bokki jullit yi bokki taalib yi noo ngi leen di duyu bu baax a baax di leen siyaar di leen ndokkel ci bisub Cheikh Mouhamadou Moustapha Mbacké bi man mi di leen nuyu nag maa ngi tudd Ousmane Sy Ousmane Sy doon taalibe di taalibe Cheikh Mouhamadou Moustapha Mbacké mi nga xam ne tarbiyu naa daaraam ja ay xat ba am jëlee fa ngërëmam bi ma delloo njibi Saalum di jàng alxuraan ak di ko jàngale ñib si xaat fii ci moom laane ko daara de laa bëgg fu ma ko def mu ne ma am naa barab boo xam ne de am naa fa ay naal yu bëree bëri waaye amaguma ku fa taxaw gannaaw ñëw nga nag te wax nga ma lii a ah danaa la yóbbu foofu bisub aljuma jot ma xëy ñëw fa mu boole maak ku ñuy wax sëriñ Cissé doon suñ magu daara doo suñ bàyyi daara sax laay wax ndax ku ñëw ci daara sëriñ Mouhamadou Moustapha fi nga ko fekk kuy dem it fi nga ko bàyyi ba nii ko suñu borom moom daaw jéeg ci màggalu Cheikh Massamba Gueye sëriñ Cissé boole maag ku ñuy wax Mama Diouf Mama Diouf na ma neen dem ma wan la li sëriñ bi moom fii moom moo ma yóbbu ba fële ca koñ ba ma fii la sëriñ bi xam waaye sëriñ bi xamul fii ma nga dem ba ca saawee meet ba na nga garde lépp daal woon benn pakk na ma dalal fii ma dal fii ba ma ba fa yendoo ba ngoon ma dellu si ci kër gi wax ko sëriñ bi mu ne ma waa demal toog foofa xaar ma fa boobu foofee ma toog la ko dalee ci saawee meet ba ba ci pël gii genn kër nekku fi lu dul gajji beeg garab yi rek ñoo fi ne mu ne ma waaye toog fa xaar fa xaar fa Cheikh Massamba sax la ma wax de ma ne ko incha allah dinaa fa toog man ne fa ak moom ne fa ne fi ne fi ba ne fi mu ne xelam nekk na ci jublu barab bii mu woo ma ma julli ji juma kii julli euh, tabaski ba ñëw dem siyaare ji ko mu ne ma foo julle yiit ma ne ko maa ngi jullee ci sow dëkk ba waaye fu sori de ndax bi may ñëwat de une jot na mu ne ma place boobee ma lay sàmmuloo seetal foo fa def ab bayaal di fa jullee danaa fa def jàkk mbaa juma ma ne ko euh, bismillah ba ma ñëwee ca boori Ibra Jang mais la fee laa fàkk place bu yaatu samp fa ñeenti bant juble ko xibla julli fa korité man ak Baye Bass Amar mii Baye Diop mii ak ku ñuy wax Ousmane Diop ak samay dongo ñu julli fa korité julli fa Tabaski ba ma delloo Tabaski siyaare ko wax ko mu ni ma dontale yow dong la de Ousmane danga fa mos a xat ma ne ko ah waaye alhamdulilah mu ni ma toogal foofu rek xaar ma fa maa ngi ñëw. ah may sàmm barab bi oto boo xam ne seen naa mu taxaw ci barab ci ci lii ma sëriñ bi sàmmloo lu mu guddi guddi dinaa waaxu ñëw nuyoo ak yow waxtaan ak yow ci ak taalibe ba nga xam ne barab bi am na borom nga taal sa oto daal di jàll. noonu laa ko sàmmee ba mu yebal fi ku ñuy wax mbay ja nde ko tasaareel ma euh, euh, liste bi ci pàcc yi nga xam ne moom laa fa war a joxe te la fa Ousmane bàyyi muy fukki kër ya ak ñaar ngeen bàyyil ma ko fi ndax juróom-benn yi pénc laa koy def def fa jàkk ja mbaa juma juróom-benn yi sama kër bopp fekk fële laa ko rëddoon mbay na ma fee daa xat fii laa koy def si ñu natt fi fukki kër ak ñaar juróom-benn kër yi moo ne nii juróom-benn kër yi moo nekk nii mooy yi nga xam ne fi leen def jumaa mu ñëw ànd sëriñ Serigne bu sant bu sant damay fàttali tur bi ak ñaari kilifaay Mbacke Mbacke ak Moustapha Ndiaye mi chauffeur bi mu ñëw na ma dama bëgg rëdd ci jumaa ji ñu rëdd jumaa ji euh, bañ rëddee jumaa ji ba Serigne boobu bu sa euh, fi nga xam ne fii la xutba bi xutba bi euh, génnee mu ñu rëdd foofa gas fa tuuti sëñ bi na ma demal wuti euh, fekk indi na ab gàtt mu ni ma indil gàtt bi ñu indi gàtt bi ñu rey gàtt bi fii ci leen def euh, fii euh, muy minbar bi nii fi leen gas def fi gàtt bi def ci yenn yi yese des mu saraxe ko ñu daal di keroog ñu ngi ànd ak ku ñuy wax ngoom mu ñëw ak ay maçon keroog leen tàmbalee rëdd barab bi ñu daal di tabax tàmbalee gas juma fondation juma ji bañ ko fondation ba xam ne ñu koy liggéey ñu koy liggéey ba nawet xam naa liggéey bi ëpp ngom ah, ngom xaw a arrêté ca la ngelaw lu am doole ñëw daal di daaneel tabax bi fekk ma nga ndakaaru ma woo ko wax ko ko mu ne ma waa baax na fexeel ànd ak yoo xam ne da ngeen toxal birig bañ toxalee birig ba noppi ca la ah, ca la ma woo na ma Cheikh ñang ak gànn ak ñoñom ñi ñëw ca leen tàmbalee liggéeyaat jumaa ji nii ba nii jumaa ji nii àgg nga xamee ne yegg na mu mu ne ma demal woo ma sëñ Moodu ma dem woo sëñ Moodu moom sëñ Abdou Salaam mu ne ko sëñ Moodu mu ne ma Ousmane ma ne ko Mbacke mu ne ma sëñ Moodu mooy sama taaw sëñ Moodu joxal ma loxo sëñ Moodu ma jox ko loxo mu ne ma sëñ mu ne ko sëñ Moodu jàppal ma Ousmane Ousmane jàppal ma sëñ Moodu sëñ Moodu bëgg naa bu ajjuma ji pare ajjuma ji séddee naa la ko Ousmane ma ne ko mu ne ma téyel ma waxtu juróom yi waxtu euh, julli nag danaa ko dénk sama doom mooy Abdou Khabir taarix boobu daal damaa mënta wax nag lu bëri waaye taarix boobu daal am naa ko ci barab bii yàlla digal defal nañu it nag mosuñ fi am coow mosuñ fi am fitna sàmm nañ ko ba ni mu ko bëggee amee nañu ko daaw daaw jeeg bi daaw bi ñuy waxtaan ci mu war na mu wax ne ne dana fi màggal si dana ubbi jumaa ji xam naa booba day tàggoog man wan man na ma toppatoo gi ngay toppatoo jumaa ji nag am nga si sama ngërëm bu baax waaye booba xamul lu muy wax nekk booba am na moom lu muy wax ah bi ah, bis biñ ma wax ne ci lañ war a ah, defar si màggal gi fii nii ñu ko suñu Ahmadu defee a ah, wubbi jumaa ji bis boobu ma ak ci la wuji suñ borom waaye yàlla nay leeri kese ah doomam yii ko wuti muy sëñ Ahmadou xam na matee na ko sëkk yàlla na ko sutu fan te naal yi fi sëñ bi bàyyi yëpp mu yeggali ko ba naal naal yi boppam moo ak ay rakkam ak ak taalib yi xam ne ñoo bokk ak moom Cheikh Mouhamadul Moustapha wa salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. man la Ibrahima Dieng mu Cheikh Moustapha moom si Massamba lu jiitu loolu ñu ngi sant tey ñaan suñu borom. Cheikh Mamadou Mountakha ak sëriñ Mamor mi nga xam ne moo fi ma sàmba ak sëriñ Ahmadou Mbacke ak mboolem kilifa yi ak dongo yi suñu borom guddal seenu fan te defal leen jàmm ak feebal ñu wax ci juma liggéeyu jumaa ji nga xam si ne suñu jàmbaar seex ma Mouhamadou Moustapha moo ko taxawaloon te lu ci bari ñu ànd koog moom ndax suñu Ousmane li muy wax ni Baye Alla Ngom moom mi nga xam ne si ne moom moo fondation jumaa ji te ginnaaw bi mu am lu ca daanu lu ji loolu loolu lañ fekki wut. waaye ginnaaw bi nga xam ne si ne Cheikh Niang ki nga wax donga yi jox na jox na ko donga yi ci laa ànd ak ñoom ndax donga yi nga xam si ne moom la tërbiyaloon boppam ànd ak ñoom liggéey bi lépp lu muy liggéey ñoom ñoo koy liggéeyal mm, man la man la boole woon ak ñoom. jumaa ji ak yeneen ak yeneen jumaa gi mooy ñaareelu jumaa bi yi nga xam te ne taxawal na ko te dongo yi taxaw ko lépp man la ko doon taxawloo maa ko taxaw lu fi ñëw maa ko maa ko fi indi luñ fiy defit maa ko taxaw ànd ceeg suñ Ousmane mii sëriñ bi nag euh, amoon na euh, njor am na amoon na fii euh, yéen a jooxane bi nga xam si mujj nañ cee waxtaan ak moom man la ak Ibrahima Guèye ak ku ñu wax sëñ Xaadim si booba wari nañ booba kori nañ kori nañ ba noppi daaw jéeg ci 2021 bi ñu koree ba pare ci lan ko fekk ci néegam néegu biram ñu waxtaana ñu koy waxtaane bis bii pour euh, te liñ ko war siyaar bi ñu waroon indi ak màggal gi mu bég ci kontaan ci lool ne bu soobee yàlla népp nu ngeen ko bëggee rek ànd naa ko ceeg yéen ànd ceeg bégte ma ne nag suñu Ibrahima ne ko suñu Moustapha day nit ko xam ne bëggut a teg kenn coona ku xam si Moussa xam ne bëggut a teg kenn coono moom lépp rek da koy bëgg day bëgg lim lim mu téyel ko boppam defal ko boppam lu mu a def boppam mu mu mu mu mu mu mu tege ko noonu waaye du bëgg a sànq moo tax boo gisee jumaa ji néewul kenn diw demal demal sanc ji demal dëkk njaxaay lu mel noonu la boo gisee néewul diw demal dëkk njaxaay kenn ku ne du wax demal dëkk njaxaay lu demee noonu la ndax li mu def ab joxoñ la kilifa bu fekkee ne dafa am ab ab euh, suuf su tool nii dagg ko jox ko ay doomam séddale ko ay doomam ñu wër ko dagg fa kër boppam def fa jumaa ay taalibeem yëpp yu ci bari mu may leen fa kooku ku ne la ku ne la bëggul bëggul penc moomu dund waxul lu nga xam waaw bu la ko ci moom jàppit bu fekkee ne yow borom xalaat nga xam nga ne kii kat bëgg na lii nii laa ko waxee woon ci kanamam nii laa ko waxee ci kanamam mu bëgg ci ree bëgg ci lool ci kanamu Ibrahima géey ak Sëñ Xaadim si ñu ngi fi ñoom ñooy sama seere kon penc mi dundal ko dama jàpp ne Sëñ Ahmadou mu def nii dafa dëppoog bëgg-bëggu Sëriñ Moustapha te moom da bëgg-bëggu Sëriñ Moustapha rek lay dàkk dafa bëgg dëppoo bëgg-bëgg Cheikh Moustapha ñu ngi ñaan suñu borom mam mi nga xam si ne moo man lépp mu dabu ko ci te lépp loo xam ne sot nañ ci ay xéewal ñu jot la Cheikh Moustapha mu jot ci ak mboolem gaa yu baax yam fa fekk yam ñu ngi sant bu baax ñun daal ñu ngi sant bu baax Cheikh Moustapha daal defal nañu loo xam ne si ne moom suñu Ousmane amuñu amuñu amuñu fayam ndaxte jumaa ji buñ na laa dongay tërbee ñoo ko ta ñoo ko ñoo ko tabax dongay tërbee ñoo ko tabax kon dongay tërbee yooyu def taalibee ñoom ñëpp tey ji kenn ku nekk ca yaa yor sa bopp kenn ku nekk chef de chantier nga kon kooku liggéey nit defar defar nit mun a baase foofu ab donga bu dem ba tabax jumaa di tabax immeuble kooku donga boobu keroog bi bi mu leen yeewee donga yooyu yëpp bi mu leen yeewee ba ca suba sa ñoom ñëpp ca lañ xëy ca lañ xëy liggéey loolu mu defar mu leen mënta faase yi defar nekk ak nit nekk ko formé ko ba nga xam si ne bis bi nga ko yeewee ne ko tàllal jox ko leetaram ne ko demal demal liggéey ba mu xëyee dafa dem liggéey dafa gàddu turam dem dem liggéey wutib dem lu mu sàmmee ngoram ngi sant bu baax tey suñu jàmbaar ji suñu borom yokk ay leeram te njaboot gi fi bàyyi suñu borom teg ci ñoom loxo te eh, lépp loo xam ne si ne lu ñu lu ñu lu ñuy lu ñu nemle loolu lañ ko yàlla bu ñu ko gis si njabootu Cheikh Moustapha ak mboolem julli jëpp ci barkab Cheikh Moustapha Massamba yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk mii di wax ak yéen mooy Ousmane Gueye ndongal Cheikh Moustapha Massamba taxaw fii ci Touba Ndiakhaay di pencum sëñ Moustapha Massamba ànd koog magi taalibeem yi ak mbokki taalibe yi fi taxaw yëpp muy sëñ Ousmane si mi njëkk jël kàddu ak sëñ Ibrahima Dieng ak sëñ Baye Yoro mii di magum taalibe moom itam ak suñ mbokki dong yi ñoom itam ànd ak yéen ci sëñ Ibrahima ak sëñ Ousmane indi nañ cosaanal fii ak ni ko sëñ bi yéene woon ñu nag ñu barkeelu ci màggal gii ñu fi defee si nag ko waral lu luñ lay wax dañ naan la sëñ ma Massamba ci boppam moo fee ñu sëñ Moustapha ne ko wutal ma bis dama ci ñaanal mu tëdd ba guddi mu yee dongo yi boobu Baye Cheikh Daaru mi moo ne moo bokk na ci dongo yu mag yi sëñ Mbaye Guèye sama mag booba ci tuutànke la moom ko nettali waaw mu ne leen maam jàngal leen ma xasida ca la tàmbalee màggal gi di ko jàpp màggal gi ñu bari xam nañ ko nee na booba yaakaar naa daal ay 73 kon yàgg na nee na mu dem di dem bu mu yàgg nag mu jàpp ko xam nga dafa jàpp fi ko jàppee nag magi taalibe ne ko ah sëñ bi jege naa ko daaru xudóos gi de mu leen sëñ ma sàmba ak sëñ tuubaa bu ñu jegee sëñ ma sàmbaay fekk bis naka tey dugal naa ko ci boole naa ko ci bis naka tey daan na leen waaye yéen di kon daaru màggal daaru xudóos maanaam den ko bëggee bàyyi waa daaru xudóos bu ngeen leen ko bàyyee bàyyee leen lu baax rek màggal googu ñëpp a ko bokk ndax sëñ tuubaa sëñ tuubaa ñëpp la waaw daan kon la ko ñëpp fonke noonu sama bis bi daal tey da caa teg leen bis bii nag aw ma bis bu ma ko gënal ci kaw suuf muy bisu tey bii. kon bis bi li may faral di wax ne boo taxee sànni benn sànni jamono yu bare bare bare bare bare ndax yaa ngi màggal suñu Moustapha Massamba di ko ñaanal yaa ngi koy defal ma Massamba yaa ngi koy defal suñu Touba kon yàlla nañu yàlla nangul lépp kon la sëñ bi Guèye mi nga xam ne moo jiite liggéey bii ànd ko sëñ Fallou mii nga xam ne moom teel naa ñëw loolu macha di liggéey liggéey loolu lañ doon sàkkoo xam moo taxoon ñu dajale leen ndax lu mel nii nee na mooy tax ñu xam dëkk bi ndax nee na ba léegi am na ñoo xam ne ñu ngi koy laajte Touba Njaxaay waaye ku ko bëgg xam daal mi ngi ci diggante Aliou ak Daaru Karim soriwul dara jumaa ji nag suba lañ koy eh, ubbi incha allah ñi ma ñu ci doon julli na waxtu yu juróomi waaye suba lañ koy tàmbali nag di ci julli di ci julli ajuma kon daal loolu xam naa ci tënk ndax jotaay bi yàgg na loolu lañ doon leeral rek demoon na daal suñu ma Massamba moom borom jaamu yàlla la ak liggéey ca moom la fi bàyyi sëriñ Ahmadou mii nag moom it dañ ciy laal tuuti lim ñu njëkk wax biñ ne ko dañuy ñaanal si Moustapha def ko ci wetu barab bi danañ yéen di leen ma njëkk a wax mooy li ma gën a neex ñu bëgg a jóg de nañu kaay leen ma waxal leen man li ma li ma koy defal dana ko saxalal fi guddi aljuma ak kaamilu aljuma fekk sëriñ bi bàyyi woon na fi ndigal yu mel noonu ci ñun ñii ne ñu dellu ma jàngal guddi ajuma gu ne bu fi nekkee ak bu ma fi nekkul sëñ Ahma ñëw firndeel ko ci yëgowuñ kon ñu xam ne kooka mooy kii ca moom it liñ ko wax dañ ne ko mbàkke ñun dey boo gisee ñu jege ak yow lool ànd ak yow dañoo gis ni sëñ ma sàmm daan doxe nga noonu ngay doxe ñu itam fañ ko féetoon fa lañ lay féete ca sonalul kenn laajul kenn dara sësul kenn maanaam bañ na ko bu maa bu woote ay addi dana nañ fexe bu muñ demee sëñ Mamor bu ñu fa kenn man ndax sëñ Mamor dañ leen yéen seen waajur moo manoon fexe leen ba yéen lu ñëw na yéen ci man fu mu ne lu mu laaj nii du ci sonal kenn sunu lu ñu ci dara dara dafa ànd ak ñun ne ñu ci tërbiye yi laa bokk ndax nga xam maam daayira tërbiye bii ci la bokk am na carte membre day teg mbokk sëñ Seexuna jëwrinam njaboot gi ci lañ bokk taalibe yi ci lañ bokk kon ñu ngi soññaat suñu bopp di soññaat mbokki taalibe yi ñu gën a taxaw ci gën a liggéeyal sëñ Moustapha Massamba xam ne moom ku ko liggéeyal liggéeyal nga yàlla liggéeyal yonent bi liggéeyal Serigne Touba liggéeyal Cheikh Massamba kon ñu ngi leen di sant bu baax jotaay bi yàgg na di sant bu baax baax ci kaddu yi fi jaar yëpp ñaan yàlla nangul ñu liggéey bi ñu ngi leen di jéggalu nag ci kaddu yi lépp loo xam ne ni du ci maanaam jaarul yoon suñu jëm yu xeew yi la waaye lu ci jub ñu ngi koy sant yàlla suñu borom tabaaraka wa taala di ñaan yàlla nangul ñu lépp barki borom Touba baraanil alimu min dalali fa surtu muxsitan bila ixlaali براني العليم من دلالي فسرت مخستا بلا إخلال محى الحكيم مع ترى كليتي من البلايا أقبلت هديتي إلي أقبلت هدية الكريم وكل ما كنت من الله أروم آيات منزل الكتاب نزلي وإنني عن العذاب معزلي إذا تلوت آية نلت منا من مالك ملك قد أمنا samba yaa mata kañ yaa mata roy ci samba ndax yaa fa bon sa lépp jox ko samba Cheikh Moustapha ma samba yaa xam sa borom Cheikh Moustapha ma samba yaa gëm sa borom Cheikh Moustapha Massamba yow amoo morom yaay doomi Cheikh Massamba Cheikh Moustapha Massamba yaa xam sa borom Cheikh Moustapha Massamba yaa gëm sa borom Cheikh ma samba yow amoo morom yaay doomi Cheikh Massamba bis ba yonente bay rañaan ci la Cheikh Massamba feeñ samaan Jibrilu andi alquran siyaare Cheikh Massamba Cheikh Moustapha Massamba yaa mata kañ yaa mata roy ci Samba ndax yaa fa bon sa lépp jox ko Samba Cheikh Moustapha Massamba yaa matub sëriñ sa doom yi doy nañu sëriñ bilaahi yaa bari njariñ ba mel ne Cheikh Massamba Cheikh Moustapha Massamba yaa matub sëriñ sa doom yi doy nañu seriñ sëriñ yaa bari njariñ ba mel ne ma Massamba diggante asamaan ak suuf lépp lu fi naaw jibrilu moo la gën a gaaw tëggam na Cheikh Massamba yasir lahum bihi la sitan sarang fa kullu ma yasarta wata yasarang subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin mursaliin walhamdulillaahi rabbil aalamiin di Cheikh Moustapha